ni nga ko waxee Moustapha ci suñu ponk bu njëkk nga ne parti socialiste Bamba Fall rentre à la maison. waa xam nga euh, su ma nee Bamba Fall rentre à la maison. Mm-hmm. parce que simplement euh, parti socialiste googu mu dellu. Mm-hmm. Euh, Bamba Fall politiquement fa la juddoo. fa la yaroo fa la màgge xamul feneen fu dul foofu. donc du du en tout cas man bokkuma ci ñi muy bett nga mm-hmm. dégg ñu ne Bamba Fall dellu na parti socialiste mais dellu gi lu ñu mën a rafetlu la wala lu ñu mën a ñaawlu la. la mën a jur. loolu lañ bëgg a waxtaane mhm. euh, te loolu pour ñu waxtaane ko il faut ñu def ni ñu defoon semaine dernière mhm. remonter un euh, le temps pour xool fan la mbir yi jógee mhm. il faut nga jàpp benn dat mooy le 9 janvier 2017 9 janvier 2017 ci lañ jàpp Bamba Fall ak ñenn ci waa parti socialiste tëj leen ci kaso bi. lan moo ko waraloon Ousmane Tanor Dieng mii jiite parti socialiste moo leen porte wax ne dañoo saccagé le 4 mars 2016 maison du parti. Mhm. maanaam dañ ko tojate yàqate ko. Mhm. wax leen de tamit ñoom dañu def association de malfaiteurs maanaam def dañoo def mbooloo ngir jëf jëf ju bon. Mhm. loolu doy ca Ousmane Tanor Dieng ne dañu def destruction de biens publics maanaam yàq alalu jàmbur. ba pare moom Bamba Fall mii accusé woon nañ ko saxane ne dafa mhm. recruter ay nervi ngir rey yenn ci responsable parti socialiste tentative d' assassinat wax jooju xamu ba xam euh, yaa ngi koy fàttaliku mais euh, jugoon na fi alors loolu taxoon moom mhm. Bamba Fall defoon na euh, trois mois ñetti weer mhm. ak fukki fan ak juróom-ñaar ci prison wu Rebeuss bii le 25 avril 2017 lañ ko may liberté provisoire mais déglu lu baax bi Bamba Fall génnee le 25 avril 2017. le 11 mhm. septembre 2018. Mhm. Bamba Fall yëkkati kàddu waxtaan ak euh, waa journal bii di Les Échos. Mhm. lan la Bamba Fall wax daf ne Ousmane Tanor Dieng mi jiite parti socialiste. capable gagné sax commune Mbour. mu ne Mbour 16 communes la. Ousmane Tanor Dieng ñaar la ci mas a gagné ci àddunaam gépp mu ne moom Bamba wax na Macky ne ko. yow président Macky Sall su fekkee bëgg nga gagné élection séparé wul ak euh, Ousmane Tanor Dieng parce que du nit kuy gagné. mu mhm. ne Ousmane Tanor Dieng loser la Cheikh Tidiane muy sédan <laughs> football xam mooy koo xam ne lu mu dugg échec bu <laughs> gagné dara mu ne Ousmane Tanor Dieng n'a jamais rien gagné dans sa mhm. vie mu ne bu mu ko yàlla bindee ba tey mosul gis moom Bamba Fall mooy wax loolu mosul mhm. gis Ousmane Tanor Dieng lu mu bokk gagné te loolu l'histoire daf koy jox raison nag parce que depuis le congrès de mars 1996. bi ñu tegee Ousmane Tanor Dieng ci bopp parti socialiste ba léegi. mosuma dégg élection bu ñu dem parti socialiste am wiiw li ci ëpp euh, day deltu ginnaaw mais du jëm kanam. alors loolu la Bamba Fall di wax. donc soo toogee ba mu ji mu yàgg ñu ne la Bamba Fall deltu na dellu na parti socialiste. Mhm. da nga naan moralement. waxoon naa ko fii ça pose problème. mais malheureusement suñu classe politique éthique ak morale c'est pas leur donc mais moralement. Mhm. man euh, euh, question bi may laaj mooy nan la Bamba Fall di demee parce que moom wax na sax ne gisee na ak secrétaire général ba waxtaan nañu mais nan lay demee di toog ak Ousmane Tanor mi nga xam ne moo leen porté woon plainte ñu dem prison le 9 janvier ba génn le 3 mois après. le 25 mhm. avril. ne leen dañuy def association de malfaiteurs maanaam mhm. dañu booloo nekk euh, pour def lu bon dañu yàq alalu parti socialiste ba pare accuser leen de tentative d' assassinat. Mame Bamba Fall yëkkati kàddu ne Ousmane Tanor Dieng loser la mësul gagné dara ci àdduna te du ko mës a gagné. tey jii mu war a retourner au parti socialiste war a toog ak Ousmane Tanor Dieng mu nekkaat patron ak le parti socialiste. sa mhm. pose problème moralement ça pose problème éthique euh, ça pose problème te wax naa la fii ne la Ousmane Tanor Dieng jamono jii dafay savourer victoire am savourer victoire am mooy. Mhm. am na raison. ci Aïssata Tall Sall mhm. am na raison ci Khalifa Sall am na mhm. raison ci Bamba Fall am na raison ci Barthélemy ak ñeneen mhm. ñeneen pourquoi parce que li leen boole woon mooy lan mooy ñëw ñu def Macky Sall mu nekk suñu candidat ñu ne ko du fi amee xeex bi am fan la mujj Aïssata Tall Sall rejoindre ko d'accord ne Macky Sall ne nekk seen candidat ñi bañoon Macky Sall gagné na leen maintenant moom il dans une position boo xam ne man j'ai l'impression que ne daf leen humilier kenn par kenn parce que ku ci dal rek humilier na la parce que soo gisee ne Bamba Fall moo wax wax ji yëpp jëmale ko ci Ousmane Tanor Dieng ba pare tey mu delluwaat nekk taalibeem ça pose problème ça pose problème mais politiquement aussi parce que politique la ñuy def ñoom mm-hmm. ñoom defuñu ñu defuñu moral mm-hmm. politiquement man nga comprendre lan moo tax Bamba Fall dellu xam nga Bamba Fall mooy maire Médina te bu sañoon continuer di nekk maire Médina ñu jëm élection locale au mois de décembre deux mille dix neuf bi ñu jëm mhm. dans quelques mois Bamba Fall lan moo taxoon bu nekk maire Médina. Mhm. mooy taxawu euh, Ndakaaru bi nga xam ne Khalifa Sall moo ko créé woon. taxawu Dakar bi Khalifa Sall demee prison ba léegi la réalité mooy dooleem wàññeeku na bu baax a baax a baax parce que un leader politique bu nekkee dans les lien de la détention li mu mënoon a def ak ay militants pour continuer garder ay forces am dootu ko mën Khalifa Sall loolu lañ ko xañ loolu moo tax. en 2017 ñu dem élection législative APR gagné ko à Dakar. Mm-hmm. parce que Khalifa Sall bi ñu koy fal député mi ngi prison il a perdu Dakar mais mi ngi prison la ko fekk. ñu ñëw en 2019 élection présidentielle Macky Sall gagné à Dakar parce que Khalifa Sall en prison. Mm-hmm. yooyu yëpp dafay ba Bamba Fall donc comprendre na ne su bëggee ne dafay conte waat ci taxawu dakaar rek pour nekkaat maire Médina dina compliqué trop. d' autant que Médina googule daf koy ak ku mel ne Seydou Gueye. ministre porte-parole du gouvernement Abdoulaye Seck ministre de l'agriculture mhm. mais également Cheikh Tidiane Ba directeur national mhm. des impôts et domaines nga xam ne ñoo ñëpp c'est des gens de la paix yoo xam ne mhm. bëgg nañ nekk maire Médina Bamba Fall donc dafa nekk di jouer lan lay jouer dafay jouer la carte Ousmane Tanor xam nga lan mooy la carte Ousmane Tanor mooy xam na ne force bi ko Khalifa Sall joxoon pour mu mën a nekk maire Khalifa Sall amatu ko. Mhm. mu dem ci Ousmane Tanor Dieng pour ñaar. Mhm. d' abord parce que Ousmane Tanor Dieng est toujours en de bons termes ak Macky Sall déggoo nañu. mën nañu mhm. waxtaan. xëy na mën nañu waxtaan Ousmane Tanor Dieng convaincre Macky Sall mu bàyyee leen quand di quand je mu bàyyee leen mooy mu bàyyi parti socialiste kon ne yor maire mairie Médina. Macky Sall su bëggee tey parti socialiste kon ni di yor mairie Médina da koy da koy def parce que il suffit juste mu ne Cheikh Tidiane Ba Youssou euh, mhm. comment il s'appelle Seydou Gueye ak ñi ngeen àndal bu leen présenté wu duñ présenté wu duñu présenté mais loolu euh, beneen affaire la mhm. alors su fekkee ne loolu amul Bamba Fall ba tey la carte Ousmane Tanor Dieng lay jiite lay joué pourquoi parce que su fekkee ne déggoo amul ci diggante PS ak APR pour séddoo yenn mairie yi Dakar parce que élection noonu lay demee waa waa waa PS mën nañu par exemple ñun mën na leen a jàppale aw parcelle mën na leen jàppale Grand Yoff mhm. leen jàppale ñu Médina ñu mhm. jàppale leen euh, Mermoz et cetera et cetera su fekkee ne juboo boobu amul Bamba Fall man na def leen mooy mhm. dem ci bannière parti socialiste parce que parti socialiste am na quand même quelques forces dese à Dakar. Mhm. su fekkee ne am na tuuti ci li mu amoon ci xalifa boole kook li ko Ousmane Tanor Dieng mën a indil avec le parti socialiste mën na espérer. Mhm. gagner mhm. l'APR euh, à à la Médina. mais loolu c'est tout un problème te li tax ma yaakaar ne dina jafe ci moom pour mu gagner waat APR Médina su fekkee ne Macky Sall dugalu ci loxoom. ne waa APR nañ bañ a présenté wu. moo di ne moom Bamba Fall tey ki muy dem di wuti doole ci moom pour garder la mairie de la Médina mooy Ousmane Tanor Dieng moom moo ne. c'est un loser. du gagné dara ku dul gagné dara rek mën la jàpp da nga gagné. waaw loser to mooy perdre en anglais. to lose mooy perdre voilà loser mooy ku dul gagné jamais. voilà d'accord kii euh, c'est que euh, man boobu. Mhm. Euh, li ma jàpp ci Bamba Fall. dëgg la bi ko Moustapha di wax fii te Bamba Fall dina loolu moom dégg nga ku xam bu baax xam nañ ne pour intérêt moom. Mhm. intérêt personnel. waaw xam naa li may wax pour intérêt personnel xamoon naa ne soit ñaari yëf mooy am. soit dem euh, maanaam jàppale waa APR. ou bien delluwaat ca këram. te dellu na waaw te dellu na. ca xam na benn euh, waaye bu ma dégg ci Walf Ali Fary Ndiaye mu ne dafa dellu pour des intérêts purement égoïstes. en tout cas daal leer ba leer mooy. Mhm. moom mi ay euh, kii bu doon mooy kii rek mais intérêt intérêt. def ko moom moo ko pousse mu dem. beneen euh, euh, analyse bi ñu mën a def tamit ci euh, maanaam demam. parce que xam nga leen dafa am. dëgg la Moussa man analyse bi nga xam ne pour waa kii waa APR mais nag Moussa bul xam bul fàttali tam xam nga dé bon tey tey mën naa ne du débat bi mais. ñu xaw ci anticiper tuuti. gis nga élection municipale yi ñu jëm. Euh, APR am na loo xam ne bu ko doxalee mën na rey parteem xam nga ci naka. Mhm. parce que da ngay xool euh, man damay jàppale cinq ans. Mhm. moom mu dem. Mhm. mais gis nga euh, bu APR. contrôlé wul ay yenn mairie mhm. dootu ko contrôlé te Cheikh Tidiane tu as tout compris euh, de l'enjeu de ces élections de de, de décembre amul daal mhm. parce que li ñu li waa parti socialiste war a euh, euh, sóoraale bu baax. waaw moo di ne Macky Sall en 2012 bi mu faloo. Mhm. il avait un mandat de sept ans. après mun na dina ko def cinq mais sept ans la ko xam na ne en 2024 mën na faluwaat donc soxla na ay force yu ko accompagner jusqu'à ce que mu dem donc lu ñu bëgg mën na leen jox mois boobu mais mois bi. Macky Sall wutul dara xam lan lay wut. Mhm. lu consolider APR. te dégg naa tey ci suba benn euh, journal euh, Abdou Ndéné Sall. mu mhm. wax ne euh, l'APR doit survivre à Macky Sall maanaam après Macky Sall. APR dafa mhm. continuer dund. te le meilleur moyen tey pour APR di continuer dund. mooy am ay maire yu bari am ay député yu bari. parce que am ay ministre sax mën nañ ko gérer. mais quand tu as des maires xam nga ñoom c'est des élus ñoom ñoo nekk ñoom ñoo gën a jege les populations moo tax tey ce sera très très difficile pour allié wu Macky ñu convaincre ko mu lâcher yenn maire yi mm-hmm. surtout surtout Dakar. Dakar parce que Macky Sall xam na qu'est-ce que ça coûte. de gagner ou de perdre à Dakar. moom laa lay wax. gis nga élection wu élection wu euh, bi ñu doon falee lii Ousmane Tanor Dieng jiite. Euh, le machin là était pour que son parti bañ a présenté wu euh, coalition am. Mhm. bañ a présenté wu contre Khalifa Sall à Dakar. parce que dafa gëmoon ne da leen di te moom bëggul ñu koy gagné à Dakar ils l'ont fait ñu gagné leen. législatives yi ils ont pris l'engagement que dinañ gagner et ils ont tout fait pour gagner mooy bokk na ci Khalifa dem prison xaalis bu bari beeg yëpp. Mm-hmm. mais ils ont gagné présidentielle bi Macky Sall lu ñu bari lu ñu bàyyiwul xel mooy il a fait une campagne ci biir réew mi Touba la départ. Mm-hmm. def campagne réew mi ba mu mokk comme ni ñu koy waxee. Mm-hmm. mu ñëw dakaar il a fait trois jours de campagne à Dakar. Dakar rien qu'à Dakar. jaar na fii ci buntu Walfadjri di campagne. donc xam na l'enjeu. que Dakar représente donc ce sera très difficile mooy ñi ko ñi ko mooy ñi nga waa PS d'abord mais ñi ko fekki ay genre musaa si maire Parcelles ak Banda Diop maire Patte d'Oie il pense que Macky Sall dina leen njukkeele bàyyi leen seen maire yooyu duma ma ne du am de mais luy jafe lay doon moom laa lay wax parce que euh, euh, gis nga loolu la ñoom calcul yi ñuy def yéen ba ñu def Macky Sall calculé na ba tëdd na non mais ñoom ñu doon ma waa APR sax ñoo ko dul nangu xam nga dañ xam nga xam lan lañ jox Amady Sall mhm. waaye xoolal yow da ngay dem ñun ñoo fi nekk ak gars yi. ñun nag euh, suñuy nit yi il faut que ñu fi nekk loolu moo tax ma ne la yooyu gars yi di yaakaar ne waaw dil la nangam nag ah, ñoo xam seen dil waaye na leen wóor ne loolu du yomb ci euh, côté boobu loolu moo tax man euh, calcul boobu Bamba Fall li li ko gën a arrangé mooy lii mooy mu dem. ci këroom pour këram ëllëg këram mën kaa jàppale. xam nga foofu bu fekkee ne euh, côté waa après jàpp ñu mais këram comme que këram am na doole. parce que Cheikh bul fàtte en deux mille euh, li ngay wax ni xewoon na déjà en deux mille quatorze élection locale yi ñu mujj. bari na ay waa PS yoo xam ne ànduñoo ak Benno pour gagner ji mairie ba jiite ah. Aminata Aminata Mbengue Ndiaye mii liste PS la jiite à Louga waa Benno ñoo ko fa gagné. ki ko fa gagné ñoom ñaar ñoo doon siège dans le même gouvernement. voilà muy Moustapha Diop. Mm-hmm. Mm-hmm. soo demee ak Kaffrine par exemple waa PS Ablaye Wilane moo fa défendre ay couleurs ba gagné. Mm-hmm. donc Ousmane Tanor Dieng euh, Bamba Fall dit que loser. mais am na lu mu xam ci politique quand même. mu xam ci politique moo di ne. il faut ngay dajale say force pour préparer la négociation parce que bu mhm. fekkee ne amoo benn force doo mën a préparer la négociation moo tax tey tijji googu mu tijji buntu parti socialiste ne ñi demoon ku bëgg na ñëw def ko pour wut leen neex mhm. mais pour woon Macky Sall que ni parti socialiste am na ay force am yu garde mhm. su nga ñu teewul mën nañ dem xeexal suñu bopp cela veut dire quoi que tey ñoom pare nañ su fekkee ne peut-être à Dakar wala à Kaffrine wala à Louga wala à Ziguinchor wala feneen waa ànd ak ñoom pour kii ñu présenter seen liste ba pare compter ci force yi nga xam ne ñoom Bamba Fall ak Barthélémy Dias dajale nañ ko autour de mhm. Khalifa Sall nga xam ne lu ñu tuuti tuuti am na lu ñu représenté te loolu c'est un enjeu capital ci élection yi ñu jëm alors alors Moustapha man damay damay damay wax ci Bamba Fall ah parce que wax nga ko fii euh, waxoon nga ko fii euh, ne demam leer na mhm. maanaam te loolu it moom moo am bettul xëy na ñu bari mais est-ce que jaroon na muy làqatu ci ginnaaw sëriñ grand sëriñ pour ñu dem toog ci benn cérémonie ak ci ay ñaan yu doon def mu joxoñ naa loxo Bamba Fall naa ko léegi na dem euh, dellu këram nangul na ma ko est-ce que jaroon na loolu yëpp parce que Bamba Fall xamoon nañu bu yàgg ni sentiroon nañu bu yàgg ni mm. ñu ngi woon ci tànku dem que ce soit muy APR wala comme ni ko coach waxee mais sentiroon nañu ñu ngi ci euh, tànku dem ci élection yi ñu génn ñëpp gis nañ ko mm-hmm. euh, est-ce que jaroon na làqatu boobu mu doon làqatu munoon na ñibbi këram rek loolu li muy li muy tekk rek Fabel mooy le manque de courage politique bi nga xam ne moom mooy dal ñëpp suñu classe politique président wu France François Hollande. mu doon wax ne être président c' avoir le courage de décider et je ne cesse de décider. c' dire que soo jiitee ay nit nekk un homme politique nekk un leader politique da nga mmh. Mmh. décider. mooy am courage ne man damay dellu parti socialiste ma assumé ko ne maa jël décision wu dellu parti socialiste mhm. mais ku xam Bamba Fall xam ne du un grand sëriñ mooy weñ loxoom mhm. ñu ko xam tuuti xam nañ ne du un grand sëriñ mooy weñ loxoom loolu nag la classe politique du lu bees Bamba Fall dañ koo miinale Sénégal mhm. am na sax yoo xam ne dañuy bëgg a jël yenn décision yi dem seeti xalif général des Mourides wala xalif général des Tidianes dem toog wax naa wax seen wax yooyu euh, boo seetee la réalité des faits courage boo xam ne euh, généralement dafay dal la classe politique loolu moo leen yóbbu ba seen yenn décisions yi sax duñ ko nangoo mhm. il faut ñu wut koo xam ne moom lañ koy euh, wékk ne moom mhm. moo ko def mais li ma leer mooy Bamba Fall ba muy décider day dellu parti socialiste mhm. franchement franchement ce n'est pas un grand serigne de Dakar moo koy décider loolu quand même leer na Fatou Diouf ñu dem d'accord ah Aïcha ñu dem ci suñu ñaareelu ponk nga ne prestation de serment. que faut-il attendre de Macky Sall. waaw xam nga il faut ñu euh, dellu un peu ci euh, tarix pour xam lan mooy euh, prestation de de serment. Mhm. prestation de serment mi ngi war a am le 2 avril su ma juumul le 2 lañ koy def le trois mu def son premier discours en tant que président bu beesu Sénégal. Mhm. premier discours Macky Sall bi mu def en tant que président wu Sénégal lu bees ngi ko defoon le 3 avril 2012. Mhm. dinaa ñëw léegi ci lim ci waxoon. mais prestation de serment ñu bari dañuy xaar ne xëy na dina wax ci lii dina wax ci lii dina wax ci lii mais waat la rek. te waat googu constitution moo ko tënk wax ni nii lañ koy defee te su ko defee ca lay yem amul da amul leneen lu mu ci wax généralement seul je crois que waat rek moo defoon waat ba pare fii ci Léopold Senghor. Mhm. def un discours mais sinon les présidents du Sénégal dañuy def. dañuy waat après ñu yem ca. alors Macky Sall euh, lan lay lan lay def. Mhm. day ñëw ne mi ngi waat ci kanamu yàlla. Mhm. xaw ma ban yàlla sax ñoom lañuy tànn ci kanamu yàlla ak si ak si ak si kanamu nation wu Sénégal. <laughs> ne mi ngi waat ne dina remplir fidèlement la charge de président de la république maanaam lépp loo xam ne mais Moustapha. Hmm? non parce que les opposants non pas non c' était juste une façon de dire quoi. <laughs> buñ ci taxaw ah. ci taxaw buñ juste pour rire. bon après être donc de. <laughs> ah nag. dañuy ñëw ne day remplir fidèlement la charge de président de la république du Sénégal. Mm-hmm. liñ ko sas muy nekk président dina ko nekk ni ko yoon santaane wax ne dina observer moom ba pare faire observer les dispositions de la constitution maanaam lépp lu constitution sant président wu Sénégal moom dina ko respecter ba pare dina mhm. obliger Sénégal yëpp ñu respecter la constitution wax ne dina défendre les institutions du Sénégal mooy suñu assemblée yeeg euh, nangam nangam. la mhm. ci yëpp dina ko défendre. Mhm. wax ne également integrité wu territoire Sénégal xam nga Sénégal dañ naan c'est un un et indivisible c'est-à-dire que suñu territoire boobu nga xam ne li mu tuuti tuuti. moom lañu mhm. moom la ñu am noonu. mu ne dina fexe ba dara du ci fell. ba pare ne indépendance su Sénégal foofu ban indépendance la ñuy wax mais indépendance Sénégal daal dina ko défendre ba dara du ci fell. Mhm. ba pare wax ne moom du ménager benn effort maanaam lépp lu mu war a def lu mu xam ne coobare may na ko dina ko def pour ñu mën a réaliser unité africaine mhm. boobu moom dañ koy waat rek mais xam ne duñ ko def alors loolu mooy ci mhm. tënk li nga xam ne moom lay moom la moom lay waat en 2012 Macky Sall mi ngi ko defee woon fii ci euh, King Fahd Palace bi ci jardin lañ ko defee woon. 2000 euh, personnes ñoo fa woon ak une dizaine de chefs d'État yu ñu invité woon. mais bii ñoo ngi koy defee ca jam euh, Diamniadio en mille mm-hmm. Wade moo ci def bi gën a populaire parce que mu ngi ko defee woon stade Léopold Senghor ak ay 75 mm-hmm. 000 personnes mm-hmm. fa la waate woon mais sinon Abdou Diouf assemblée la ko daan defee wala euh, Senghor yu demee noonu alors mais li am solo mooy bu ñu waatee ba pare le lendemain le 3 avril ci lay def son premier discours la nation alors discours boobu mooy bi ñuy def veillu 4 avril li tax ma ci revenir mooy de de 3 janvier de 3 avril 2012. Mhm. Euh, Macky Sall bi mu defee discours am bi nga xam ne ci la njëkk a wax ak sénégalais en tant que président de la république. Mhm. mooy li mu leen waxoon mooy dina wàññi mandat d'accord le 3 avril dina wàññi mandaawam <laughs> jóge ko ci 7 def ko ci 5 Fabel est-ce que def na ko. <laughs> defu ko defu ko. Hmm. Eh, kii lañ laaj. déedéet déedéet dafay baax parce que il ñu xam su le su waxaatee ñu xam ba xam lan moo ci mën a nekk lañ dara. waxoon na ne aussi ci discours boobu yi ma ci jàpp rek parce que yëpp mënu ma ko jàpp que moom dina fexe ba. temps bi nga xam ne moom na cortège ministres yi di perte loo Sénégalais yi ci bu ñu dee génn Ndakaaru mu arrêté ko. bo moom defe naa arrêté parce que tey la ministre yi gën a bari cortège tey leen gën a mën a déranger sénégalais waxoon na ne tamit dina fexe ba corruption ger mu xeex ko jële ko ci réew mi je crois que loolu moom def na comme defu ko je que ku dul Khalifa Sall Karim Wade fayoo ci des ñëpp moom sa wax na ne am na ñoo xam ne moo ci teg coom-coom mhm. ministre am euh, de la justice wax na fi yàggul dara ci Jeune Afrique ne am na ay responsable pouvoir yoo xam ne mhm. jàpp nañ leen ci affaire yooyu ñu ngi fay loolu ma xamuma ci ban réew la am. ban réew la que jàpp Cheikh Tidiane ci sàcc ne ko fayal kenn du yëg. dan boo jàppee Karim na nañu sauver mhm. école parce que boobu année blanche lañ jëmoon. Mhm. te boobu enseignants yi fekkoon nañ ko ci ba éviter année blanche boobu. Mhm. mais taxul ba léegi euh, Sénégalais yi euh, enseignant enseignement tey la gën a am problème. ci la waxee woon ne dina réduire euh, prix wu denrée yi. loolu moom Macky Sall def na ko je que bu mu nekkee président ba léegi euh, mhm. bariwul njëkk yu yokk wàññi woon na ko te stabiliser na ko mhm. waxoon na ne aussi dina def li ñu tuddee des économies budgétaires parce que dafa jàppoon ni du temps de Wade mhm. li ñu doon dépensé ci xaalis bu état wu Sénégal dafa bëri trop mu ne woon dina ko wàññi boobu aussi euh, je crois que tey le ministre Abdoulaye Macky Sall yi gën a mën a yàq. Mm-hmm. mais li am solo bu pour des ci prestation de serment moo di ne moment la également boo xam ne dañuy gis ne les magistrats généralement kii jiite le conseil constitutionnel dafay interpeller le chef de l' état sur certains mm-hmm. sujets. bi ci gën a célèbre mi ngi am 1981 1981 ci la Kéba Mbaye jàkkaarloog Abdou Diouf Abdou Diouf war a waat Kéba Mbaye ne ko président Abdou Diouf xool ko mu ne ko les sénégalais sont fatigués sénégalais yi sonn Mhm. je pense pas nag ba xam 81 ak léegi sénégalais yi noppalu na ñoom déet mais en tout cas Kéba Mbaye waxoon na ko Abdou Diouf ne ko sénégalais yi sonn nañu 2000 euh, Youssoufa Ndiaye euh, defe naa Youssoufa Ndiaye la euh, jàkkaarloog Ablaye mhm. di Mireille Ndiaye jàkkaarloog Ablaye Wade en mhm. ne ko les sénégalais veulent cesser d'être de courageux affamés d'espoir mu ne ko sénégalais dañu bëgg ku liggéey seen réew. te mhm. bañ leen di leen gëmloo espoir espoir espoir. parce que mhm. espoir dundalul kenn. il faut ñu teg seen loxo lu leen mën a dundal. 2012 Cheikh Tidiane Diakhaté moom moo jàkkaarloo ak Macky Sall fii ci King Fahd Palace ne ko dëgg la am na progrès yu bari yu ñu réalisé ci domaine yu bari mais sénégalais li ñuy xaar ba léegi satisfaire guñ ko. loolu la Cheikh Tidiane Diakhaté waxoon Macky Sall en 2012. Mhm. Cheikh Tidiane Diakhaté yokkoon ci sax def loo xam ne ñu bari dañ ko naqarlu woon à l'époque parce que bokkul ci li li li bokkul ci élégance républicaine. Mhm. mooy ci la réglé woon ay comptam ak la classe politique notamment Macky Sall ci boppam à propos du mandat de Abdoulaye Wade bi nga xam ne moom ñoom conseil ñoo ne woon mën na def troisième mandat ci la ko waxee woon ne leen ne ñun defuñu lu dul suñu devoir loolu la waxoon alors mhm. le 2 Macky war a jàkkaarloo maintenant. ak set sages parce que yii ñëpp cinq la woon mais bii pas sept la da ciy bokk Mandiogou Ndiaye mhm. Abdoulaye Sylla mhm. euh, Bousso Diawa Fall Mouhamadou Diawara njaw Diouf Pape Oumar Sakho mi nga xam ne mooy président conseil constitutionnel moom moo war a def d'ailleurs euh, moom moo war a jël serment wu Macky Sall ak Seydou Nourou taal alors ñii lan la ñu war a wax Macky Sall par rapport à la situation du pays. Mhm. loolu la ñuy déglu le 2 avril foofu la ca Diamniadio. xanaa sénégalais yi sonn nañu. Euh, sonn boobu. non mais Kéba Mbaye waxoon na. quatre-vingt-un ba léegi ñaata. ana Cheikh Diallo non moom Moussa Ba. ba hmm. léegi dañoo sonn. Moussa Ba nañu waxante dëgg man gisuma lu ci amélioré hmm. gisuma Kéba mbay bi mu koy wax. Hmm. Abdou Diouf. ak ba léegi nañu xoolaat rek. léegi la gën a yées. léegi nii la gën a métti léegi la gën a yées. léegi nag ou bien tamit. ak lenn mu tegal ko ci lemb sax mu ne ko. politiciens yi dañoo war a respecter seen i kaddu. ak ay baax. respecter seen i kaddu loolu daf ci am solo. parce que di yaakaarloo nit di wax nit muy yaakaar te du gis dara loo gën a metti kon nag man loolu laa gëm ne que. Euh, kii jaakaar ki koy wax loolu la ko war wax parce que loolu la sénégalais yi di dund sénégalais boo romb loolu la lay wax da lay naan am Cheikh dafa am dafa am des discours yoo xam ne dafay marquer l'histoire politique du Sénégal te souvent du ci def attention bokk na ci Kéba mbay bi mu waxee Abdou Diouf ne ko de sénégalais son fatigués da ciy bokk bi Serigne Abdoul Aziz Sy baax wax di waxee député yi naan leen di xool loi yi ngeen di voté et cetera et yooyu li tax ñu ko war di ko li mooy dafa war a nekk ci bopp kenn ku ne ku nekk député war a jàkkaarloog loi mm. bokk na ci defe naa su ma juumul sëñ Xaadim mën na ko corriger mm. bi sëriñ Abdoulaye Khane Mbacké recevoir Senghor mm. Senghor di ko tàggu ne ko day bàyyi réew mi jox ko beneen génération muy génération Abdou Diouf parce que moom ay atam mayeetu ko dem sëriñ Abdoulaye Khane ne ko xaw ma yow de mais sénégalais ñoom lépp lu ñu la ameel jox nañ la donc yooyu c'est des discours yoo xam ne dafa war dafa marquer l'histoire politique du mhm. Sénégal et un président comme le président Macky Sall mii nga xam ne moo war a jiitewaat Sénégal dañ ko war di rappeler tout le temps que ni moom moo ñu ameel mais ñun ameelatuñ ko mhm. lépp lu Sénégalais yi waroon def pour moom def nañ ko fal nañ ko te bañ koy fal gënul ci ñun gënu fi mm-hmm. soo dee wàññi wax naa ko fi wax ren à l'époque boo doon wàññi fukki sénégalais yi dàq jàng bokku ci mm-hmm. fukki sénégalais yi ëpp alal bokk ci mm-hmm. fukki sénégalais yi gën a jàng alxuraan wala yi gën a xam li bible wax bokku ci mais teewul ñu tànn ko def ko président kan moo la mën a defal lopp loolu loolu doyul en 2019 mu ñëwaat ne joxaat leen ma ñu joxaat ko donc dañ ko war di fàttali waxu suñu Abdou Lahad Mbacké jooju ne ko moom moo ñu deseel mais sénégalais li ñu ko waroon a jox yépp jox nañ ko ko li ci des nag mooy li nga wax Cheikh mooy li ñu dikk ñu def ko mu jeex tàkk. waaw mais mais Moustapha man je dis très souvent que man aw ma benn yërmande ci président. Mm. ma ça moom je le dis je parce que mënuma ma la jox lépp ba pare di la topp di la sarxu c'est pas possible c'est pas possible mais mm. jamono jooju Moustapha Serigne sa doon wax euh, mm-hmm. ku ci mel ni lim nga ko Serigne Abdou Lahad Mbacké Serigne Fallou Serigne Mame Abdou Aziz mm-hmm. bari nañu dañu daan gis wax dëgg gi euh, mm-hmm. seen seen bàmmeel lañ ci xool léegi ñoom ñi fi ne fexe nañu influencer xale yi ba nga xamante ne benn religion bu génn wax ci réseaux sociaux yi la ñuy toog di la yekk loo xamante ne kilifa nga koy yekk keteme mhm. loo xam ne nopp bu ci dégg dallu say say say taalibe di ko déglu mhm. da ngay da ngay mujj ne sama yoon nekku ci naa ci génn waaw xam nga tubaab bi dañuy wax ne il bu ñëpp dee coowandoo am na ñoo xam ne dañuy préféré mhm. te seen kàddu parce que defe naa sëriñ si Ahmed Tidiane si almaxtum daana ko fàttali lu bari euh, buur bañ doon wax ne su waxee ren balay waxati déwén euh, parce que simplement euh, la la parole publique dafa am benn valeur bu ñu koy jox demoon na ci ba suñu buur yi souvent nag histoire du Sénégal ci jàng yu mel mm-hmm. noonu mm-hmm. suñu daan yëkkati seen kàddu ba sëriñ si sax loolu lañ loolu lañ doon waale mm-hmm. suñu yëkkati seen kàddu bu fekkee ne man maay sëriñ bi di wax doo dégg sama kàddu Cheikh Tidiane mooy jotal li may wax pourquoi parce que dañuy bëgg suñ njuumte am mu amee ci Cheikh Tidiane et non ci kàddu sëñ bi que dafa am valeur trop kàddu boobu am na bu ñu ko déggee euh, mën nañu mën na leen def la lu ne mais su fekkee ne comme li nga wax sànq euh, réew mi di dox di dox ba réseau sociaux am lu nekk am Euh, su kilifa yëkkatee kàddu nga mhm. liir ci réseaux sociaux yow sa yaram day daw ndax mhm. saaga yi ñu ko nam ma saaga mhm. am ñoo xam dañuy préféré toog mais loolu li koy régler lu simple la mooy état wu Sénégal moo ci jël ay responsabilité ñu ngi koy wax fii si Walf TV ne bari na ay xale Sénégal yoo xam ne dem nañ prison bokk na ci Sayer bi ñu tëj prison fan yi di ko àtte fan yi pourquoi parce que dafa menacé Israël ak euh, euh, Amérique ñu jàpp ko tëj ko ci kaso bi depuis 2000 xaw ma ñaata mi ngi ci kaso bi ñu war ko mhm. àtte mhm. procureur nañ ko tëj cinq ans de prison euh, envoyé nañ fi prison ku mel ne suñu consoeur boobu Ouleymaane mhm. Penda ba ñeneen ak ñeneen mais tey su neexoon état wu Sénégal ñëpp ñi nga xam ne ñooy saaga sëriñ si ci réseau sociaux ak yooyu état wu Sénégal am na moyen am na moyen dem jàppi leen def ci kaso bi te buñ ko defoon tey ñaar ak ñett léegi mu takk